Diagne di koy def ren mu nekk seen première fois léegi ñu ngi leen di présenter suñu invité di ko ñu di ko jaaj jaajëfal di ko tadagal soxna si ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar bëggoon nañu xam tur bi nan la ak sant bi ak looy représenté si daara bi. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax en fait man parent d'élève la sama doom mooy jàngee ci daara Yaa Marema Diagne Rose euh, maa ngi tudd Rose Siba Kanté. macha allah am na solo comme ni ma ko waxee rek te ne ren moo nekk seen première fois. ngeen def conférence bu mel nii nak nga ko dundee ak nak nga gisee xale yi seen euh, tari bi. waa xanaa naan macha allah rek macha allah sant yàlla parce que lii dafa neex ci xol am yaakaar ci daara indi fi sa doom gis ne macha allah tari na lu tooy sa xol donc dañuy sant yàlla rek di julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu yaakaar tasul ci école bi daal macha allah. lan ngay ñaaxaat yaay booy yi wala euh, suñu yaay yi daal lan nga leen di ñaaxaat pour si jàng xale yi parce que dafa nekk lu am solo yow lan nga leen ci mën a ñaax. waa xanaa di leen ñaax rek que ne ñu euh, bàyyi xale yi ñu jàng parce que jàngum alxuraan moom macha allah bu tàbbee ci dënnu njëkkee tàbbi ca dënnu xale moom xéewal la macha allah. waaw donc dañ leen di ñaan rek ñu jël xale yi yóbbu leen ci daara yi bu ci mel ni daara yaa Marème Diagne parce que macha allah ba man daal bi fi sama doom nekkee ba tey. ak samay morom wax dëgg neex yàlla yokkute rek laa gis ci xale bi ci kaw ci kanam rek laa gis ci moom wax dëgg neex yàlla bu nekkee kër ga day jàng day tari sama xol sedd te noonu la tamit euh, noonu lay laalee waa kër ga yëpp macha allah boo xoolee tey suñu waa kër yëpp presque ñoom ñëpp a ngi fi woon bi ñu bi mu taree macha allah ñoom tamit ñoom ñëpp seen xol daa tooy donc sant yàlla daal di wax euh, waajur yi ñu indi seen doom daal daara yaa Marème Diagne parce que gis nañ fi lu daal macha allah. di euh, remercier aussi personnel école à Marema Diagne di commencer commencer ci directrice bi euh, madame Khouma euh, ak aussi Badjen Woli comme on dit rek parce que ñun d'habitude Badjen Woli lañ koy wax wa liñ naan bu fecc liir nexé nday jaa jàpp ca mbagg ya donc mom tamit gis nañ taxawayam jëlul madame Khouma tek ko ci école ba rek bayiko fa mu ngi koy seetlu mu ngi koy gëstu personnel bi aussi machallah waa maîtresse yi yaa Zeyda yi oustaz allah daal ñoom ñëpp jël nañ xale yiir leen jàpp ne daal seen doom lañ yore jàpp ne doomu jàmbur lañ yore li ci war def nañ ko jàngale bi war lépp lépp daal macha allah donc ñoom yi dañ leen di ñaan yàlla taxawaay bi ñu am ci xale yàlla na leen ko yàlla fay def ko ay yiwi yiw merci beaucoup kontaan nañ si kàddu yi bu baax a baax a baax gis ngeen kii benn parent d'élève la vraiment kontaan na si. déroulement bi bi école bi di déroulé macha allah mu nekk daara yaay Marème Diagne mu nekk am solo solo macha allah kon ñu leen di jëfal di delluwaat si suñu beneen euh, euh, invité. yéen waa daara déglu leen marotan yi le kaddu si yéen jëf ju baax yóbbu si bàmmeel mais du alal. yéen waay gëm yàlla buur bi newoon. la fàttali mun a jëriñ déglu leen ma fàttali leen kàddu bu dëgg bu nit ñi léegi di daw ngir ngeen man koo waat laata réccu di ñëw ndax lu dund yàgg-yàgg dee dina ko fel te dund dund duniyaa yàgg-yàgg bàmmeel yàgg-yàgg jaari bàmmeel yoon wi nag bëri waaye bunt bi benn la niveau social yi yaatu na waaye nag tur bi benn la te baa ak buur a koy bokk di néew yoon wi di barzax di seeni réew dee yaay màbbkatu bànneex di taskatu kër yaa di taskatu mbooloom di daan katu mbër yaay ku dul foose rendez te doo tàdde heure doo xeeb tuuti baak yi di buur waaw bu ko defee ñu dalal suñu yaay Seyda bi di ko laaj turam ak santam ak lan mooy teewaayam tey fii ci daara ji. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi may suivre sama teewaay man maay Adja Soxna ture sama teewaay tey ci wàcc conférence su xale yi mooy ma ñëw teew si xool li sama rakk ji yaa wuli mata liggéey. ndax te dafa ubbi daara ji tuddee ko yaayam di sama tànt bokk sama yaay di magu yaayam ma ñëw fi muy xale bu baax tamit ubbi lu toll nii boo gisee daara ji bi mu ubbee léegi yàgg na yàggul mais gis nga ni mu évoluer xale yi macha allah loolu moo tax ma ñëw fi nag déglu si arxuraanu karim yi ñu fi jàngal xale yi looloo tax ma ñëw fi tey. macha allah yaay booy am na solo am na solo loolu waa tey bi xale yi di tari yaay booy lan nga yëg. Euh, yaram bu daw rek sama xol fees ndax xale yi tuuti mi ngi soog a commencé première édition xale yi li ñu fi wax lu leer nàññi la nga xam ne tuut tànt yi buñ leen bàyyi ba si kanam li ñu soxla si ñoom mooy wàcc alxuraanu karim dañ ko am macha allah yaay booy lan ngay ñaanal daara ji daara yaay Marème Diagne lan nga leen di ñaanal ak lan nga leen di ñaax encore une fois waaw ñu nekk te fi ñu teg seen tànk rek parce que daara ji yaa marem sama yaay jooju sëñ Moussa Binta jaañ ba ca ngaay yore di kàng fóore bind ay kaamir mooy baayam bokk sama yaay ji ma jur Awa Diagne yàlla na yaxam sedd yàlla na yàlla dooli ay leeram sama rakk ji wuli ma ñëw duppee école bi eh, yaayam Mariama te ku xam ngaay Diagne xam ne ay kaa nga fa dëkk daawuñu sax dugg nasaraan arxuraan rek la ñu xam bon moom bu ko defee rek wàcc na waaye lii du ne bulet su suy famille mais mu nekk na xale bu jàmbaar ndax ay atam bëriwul noonu macha allah te gis nga li mu taxawal ñu koy ñaanal rek yàlla yeggale mébét bi gën ko dëgëral dëgëral tamit directrice bi muy suñu doom madame Xumma ndaata ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu mu àndal ñëpp yàlla gën leen dëgëral macha allah. maa ngi ñaanal télévision nag ca kaw ca kanam rek yàlla na ngeen gën a yokk ba yëg seen bopp bu baax a baax ci yokk te fii ngeen ko defee tamit ci euh, ëttu suñu borom bii yàlla na leen yàlla ful ba ñëpp dégg leen ci merci beaucoup yaa booy ñu lay jaajëfal di la ziar di la jox sa wàccuwaay kon ñu ngi dem dalalaat suñu beneen euh, mbokk euh, المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون mbokk yi ba tey ñu ngi àndaat ak yenn di fas yéene interview suñu yaay booy bu baax bi yaay booy bëggoon nañ xam tur bi ak sant bi nan na asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taalaa wa waaw man maa ngi tudd soxna Isini Touré soxna Isini Touré laa tudd. macha allah yaa Seyda Issa Touré ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax bëggoon nañu xam sa teewaay tey fii ak euh, suñu yaa Seyda Woulimata lan la si yow lan lay représenté si yow. waaw macha allah suñu teewaay tey suñu yaa Seyda Woulimata Gueye moo ñu invité waaye di kenn si ñun di suñu grand sœur. ndax euh, daara ji nga xamante ni yaa Mariama Diagne la ko tuddee kooku mag la si suñu yaay moom sama yaay ñu koy wax Adja Awa Diagne moom yaayam ñu koy wax euh, soxna yaa Mariama Diagne ñoo bokk benn baay voilà moo tax suñu teewaay tey fii muy sunu sœur sunu sœur bu baax bu am jom ku nangoo liggéey macha allah te diine bi ñor ko lool moo tax euh, ñu teew fii tey si bisam bi. macha allah yaa booy kàddu yi am na solo am na solo loolu tey naka nga gisee xale yi bi ñuy tari tey mu nekk seen première édition nan nga ko gisee ak euh, daw na yaram torop ñu doon laaj say sentiment ak nan nga ko dundee. waaw macha allah macha allah daw na yaram ndax euh, lépp loo gis ci tout tànk bu ci tàmbalee rek dañuy am ñaxate que ne ci kaw la jëm ndax seen première édition mel nii tout tànk yi macha allah tari tari bu leer. te deuxième pàcc bi yegg seegul première pàcc bi rek moo fi jàll kon ne am nañu yàqante ne euh, lii nga xamante ne yaa say daaw ulimata tàmbali na ko yàlla mën na ko cee euh, may lu surtout njortam. macha allah yaa booy am na solo am na solo lool. waaye sa mot de la fin lan la ak lan ngay ñaanal suñu télé bi Al TV. macha allah yéen tamit maa ngi leen di ñaanal yàlla yàggal leen fi seen liggéey gën a set gën a sell ba àdduna bi yëpp euh, di leen suivre ndax li am na solo diine gi moom lu ci waaye di def rek euh, amul tànk gannaaw tànk kanam rek la am lu ci waay summ rek incha allah te mu dëgg ci yow rek suñu borom subhaanahu wa taala dina la jàppale bu baax bis bi nag kontaan nañ ci ndax euh, ñun maam yi macha allah ay kaamil lañu dañoo jàng alxuraan. suñu waajur di jàng alxuraan kon bu ñu toogee ba suñu seen sët di wàcce lu mel nii di am lu mel nii dañuy gën a sant gën ñaaxaat suñu bopp gën a ñaaxaat dulit yëpp vraiment man sànq benn affaire daf ma fi touché moo tax boo gisee ay tout tànk di dund waa Palestine te di nekk ay xale ça veut ñooñu bu ñu màggee jëm ci kaw seen seen xalaat ak seen lépp dina xam du yem si seen Sénégal rek mais day wër àdduna bi yëpp nga xam ne képp kuy julit ak fu mu mënti dégg yaa bokk ak moom ndey ak bàyyi ndax julit julitay mbokkam kon vraiment affaire boobu touché na ma sànq trop trop trop trop allah di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nañu yàlla may gudd fan may ñu wér ak wérle di fekke lépp ay at at. macha allah yaa booy ñu ngi lay jaajëfal di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax bu ko defee ñu dalalaat suñu bi moom it mu wax ci ci suñu yaa Seyda Oulimata Gueye macha allah kon ñu ngi dellu suñu yaa Seyda bi